إمام الأنبياء كلهم محمد الأمين خير العالمين يقول أين بنا لونا محمد الأمين إمام الأنبياء كلهم nen nabiya jara way yaa jara kañ jara daw ba dee sayyiduna muhammad ngeen gi mbindeef alam nama taara bu rëy ba yem nama sayyiduna muhammad giñ naa ne taara bu war yi ñuy way nabi gàttul yaram wa daa ara tax ba ni fëtër nabi suy muuñ gémmiñ nga day di leen ziyaara di leen balu àq di yóbbante ay kàddu cant ak kàddu ñaan bàyyi ko ci soxna Aïcha ginnaaw bi ñu nuyoo imaam yi ñu bokkal jotaay bi imaam Cheikh Jaxate ngi toog ànd ak oustaz Boubacar ñoo ngi koy nuyu bu baax di ko ziyaara di ko ñaanal yàlla yal yàlla yàggal taxawaayam di nuyu fa tabaarakallaahu Serigne Mouhamad Samb xam naa sant yi moom da koy far soppi rek def ko wadd moo dàqoon nag ñoo koy nuyu bu baax ak ñi mu àndal fa tabarakallahu di bég ci moom lool di ko ñaane yàlla jotaay bii yal na yàlla defal ko mu yàgg koo taxawee ñu fekk ko ñun ñëpp ah fa tabarakallahu euh, takkusaan ji nga xam ni ci paaruk seyduna muhammad la sallallahu alayhi wa ndax ñun ñëpp yonente bi moom la ñu yaakaar la am rek ci darajaam lañ ko amee kon sang bu mel noonu ak soppe bu mel noonu bu soxna Aïcha amee cofeel ci moom ba at mu jot mu def tàkkusaan bu mel nii invité julliti yàlla yëpp ngir jëm Seydina Muhammad kon dañu koy ñaanal yàlla yal na yàlla taxawu ko waaye kàddu yi nga xam ni moom lañuy ñu yónni nun lott nañu loolu pour jotal ko xanaa dem ci def rek suñu kem kàttan waaye nee na ginnaaw bi mu sante yàlla julli ci yonente bi nee na mi ngi sant gori yàlla yi nga xamante ni ñoo teew ci jotaay bi ndax dafa am loo xam ni su amee ba demee nii ñépp ñoo ci jàpp kon waa dëkk bi amul seen fay yàlla moo am seen fay yal yàlla fay leen nee na mi ngi sant ay bokkam waaye cant gi nag mi ngi ciy jiital boroom këram muy alxaaji masayeer mii toog ndax fa tabaarakallaahu dañu wax ni góor lu mu mën rek jigéen moo nekk ci ginnaaw te fa tabaarakallaahu mat na ko sëkk boroom kër waaye Aysa itam fa tabaarakallaahu mat na ko soxna ndax taxawaay bi nga xam ni moom la boroom kër di taxawee soxnaam mu ne ma seet nii fa tabaarakallaahu matale na ko sëkk yal na yàlla yàggal seen diggante barkel seen njaboot jàppale na ko ci zaahir jàppale na ko ci baatin kon cant gi moom moo ci jëkk moo koy sant di ko ñaanal tàkkusaan gi nag daf koo tudde xujjaaj yi nga xam ni ñoo bàyyi ko fii ci kër Moussa demoon dem baytala il xaraam alxaaji wala alxaajatu soxna Marème mi ngi nii toog ñëw ngir yàlla ak jotaay bi alxaaji boolewaat léegi la fi bàyyi ko Oustaz Gueye itam fa tabaarakallaahu moom itam ñëwoon na ay soxnaam ñëw nañ loolu nag li muy wane mooy cofeet gi nga xam ni moom la am ci yonente bi sallallahu alayhi wa kon Aïcha nee na ni ngi sant ujaaj yooyu di leen ñaanal yàlla aj ga nga xam ni moom lañu ñu aji woon ren yàlla na yàlla nangu ko ndax yonent bi nee na alxajjul mabruur laysa lahul jasaahu ilal janna waaw yonent bi nee na aj bu nu ko nangoo payam mooy aljana yal na yàlla defal leen ko ah fa tabaarakallaahu ndax ku na xam na ni ren li fi bàyyi ko fii ci dëkk bi dem baytalaahil xaraam yaakaar naa ni mi ngi fii doog a am yal na yokk loolu nag li muy tegtale mooy cofeel bi nga xam ne moom lañu am ci diine am ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon nee na moo ngi sant waa dëkk bi di sant ay mbokki boppam ndax ay rakkam ñu ngi ci jotaayam ay magam ñu ngi ci jotaayam jotaay bi fa tabaarakallaahu waaye waa koñ bi itam ñoo ngi leen di sant yàlla moo am seen fay yal na yàlla fay leen ndax dëkkoo na ak ñoom dëkkooy bu rafet ndax aljaaru la daar moom la yonent bi wax nee na fa ngay wut kër na nga xool ba xam dëkkandoo bu mat dëkkandoo mu nga fa kon ay dëkkandoom fa tabaarakallaahu rafetal nañu teew nañu jàpp nañu yal yàlla fay leen ndax jotaay bi euh, observation bi mu ci am chaque année rek yàlla da koy gën a avancé ndax yonente bi moo tollu noonu euh, daaw waxoon nañu di ñaan yalla jotaay bi yalla na dema dema dem ba dem ca mbaar ma ca incha allahu fa la jëm fa tabarakallahu kon mom kontan na yalla na yalla kontan ah alxaaji khalifa njaay mi tok di mbokk di dekkando ndax itam ñom ñep biram jaara jaya mo leen meññi ñu nga bayiko ci biram jaara ak ma paate ndax Aysa mii daa waxoon naa leen ni leen am na foo xam ne ku fa bokk rek nii rek ngay mën a mel ndax Mapaate Njaay wala Maxure Njaay mi koy jur bàyyi ko bu ñu waxee Mapaate Njaay nag ñu ne Amari Ngóora Njaay Demba Daat Njaay yuga jeng jawriñ saala mberi borom danaaka moo jëm danaaka jëm jóob borom siggante ak yaaram foofa la bàyyi ko ndax ñoom ay gelewaar lañu woon ndax Maymuna Musa Saane ak ndàcc Musa Saane la woon may mu may mu ne Moussa Sané wax ndàcc Moussa Sané ni ko bu ñu demee ca xare ba giir gi day jeex Maymuna Musa Saane moomu nag moo meññi maamam muy Mbapaate Njaay Amari Ngoone Njaay Demba Daat Njaay Mbay Njaay Yuga Jeng jëwrin Saala mberi borom danaake moo jëm danaake jëm Diop borom si gënteeg yaaram foofa la bokk moo tax nii rek la mën a mel yàlla nag dafa dogal maak moom doomu ndijaay lañu ak doomi bàjjan waaye loola lépp lañ koo teg ci suuf bokkoo ngir yàlla ndax Aïcha euh, ba may gën a doon tuut tànk di jàng booba la ma jàppe woon booba maa nga daan jàngee Pikine fa tabaarakallaahu waaye bu ma ñëwee booba maa ngi ko daan fekk euh, kër bàjjanam soxna Astu Njaay fa tabaarakallaahu yal yàlla yokk ay leeram mu am yitte loolu ci xam-xam da daan jël téereem bu ñëwee maak moom ñi ngi di jàngante di liifantu di liifantu ba li mu ci man fa tabaarakallaahu mu man ko fonk diina loolu fa tabaarakallaahu kóllëre googu mooy dox suñu diggante ba léegi kon yal na yàlla jàppale ko fa tabaarakallaahu bit nañu ci jotaay bi loolu di ñaan yàlla képp ku fi teew yal yàlla faj sa aajo bu dee jàngoro yal na yàlla saafara ko bu dee bàkkaar yàlla kafaara ko waaye kàddu yi nga xam ne moom lañu ñu yónnante woon pour ñu war koo wax fii fa tabaarakallaahu ah lott nañu pour motale ko yal na yàlla mottali ah Serigne Youssoufa Ndiaye ngi toog ah, ñëw ngir yàlla ak guddi gi di tàggu ko ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Oustaz Boubacar a ngi nii toog ah Mouhamad mi ngi wax lu am solo ñoo bokkoon daaree Koki di fa jàng ndax daara nag mooy lépp ndax Sénégal daara moo ko samp li fa am lépp daaraa ko fi def waaye rawatina fii ci dëkk bi Kër Moussa bañ fi bëggee indi ik wala français yi mag ñi dañuy opposé woon ñu ne du ñuy jàng français alquran rek la ñuy jàng kon mbaax gi fi nekk ak diina gi fi nekk ak teraanga gi fi nekk alquran jooju moo ko fi def ndax alquran mooy lépp kon yaa Boubacar boo leen demee ca daara ji jàng fa ñëw fa tabaarakallaahu ngeen toogaat jàkkaarloo ku nekk wax sa mbaaxu morom loolu dañ koy sant yàlla ndi nga ko waxee nag su fekkonte ni da ngeen a defante lu ñaaw waxante lu ñaaw kon doo leen jàkkaarloo ndax damay faral di wax ni nit ki looy def ak moom rek looy defal moom di séq ak moom rek na rafet bu dee lu ñaaw bis dina ñëw ngeen bokkub jotaay bu dee lu rafet it kadaalika bis dina ñëw ngeen bokkub jotaay kon lu baax rek moo am solo kon sëriñ Mouhamad ah kontaan nañ ci yow bu baax ndax fa la bokk ku ne xam na ko ah sëriñ Ousmane yal na yàlla yokk ay leeram ah, ku ne xamoon na ko ci xam-xamam ni mu bëggee woon sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam sama bàcci xam nañ ko bu baax fa tabarakallahu di tàggukatu sayduna muhammad salallahu alayhi wa sallam foo ko fekk yonente bi rek lay waxtaane kon booy xeeñ ci ñoom fa ñu jaaroon rawatina sa wayjur fa tabarakallahu kon wàcc woo sa ànd yal na yàlla jàppale la ndax saa yoo dee maddaakat man ay jàngkat lu muy bari bari gis nga madda yooyu moo may yëngal de waaw booy yëkkati nag sa kàddu boobu nag man day am fu may yóbbu ah yal na yàlla leeral sa leen wax dëgg yàlla kontaan nañ ci yow ah yal na ko yàgg taxawee kii nag fa tabaarakallaahu ah suñu suñu jigéen la suñu mbokk la tàkkusaan gi saa yu jubee rek mu wax ma ni ma tàkkusaan gi kat Mouhamad jàpp na ko waaw bis teel la ah ñu continuer ñuy ñaan rek fa tabaarakallaahu ndax tey dañoo xawoon a xat dañoo demoon Dakar am dëj buñ fa jaale bi woon ñu ñëw yem ci ab dëj loolu moo tax ñu yeex a ñëw waaye fa tabaarakallaahu ah lépp yewén na yal na yàlla mottali yal nañ ko téewe ay déwén kon bu ko defee imam Cheikh ah bu ñu paree rek euh, sëriñ Yuusufa moom rajo yi. waaw yëpp moo ko lijjanti ak encre moo ko ci solo bi fa tabaarakallaahu jarbaatu bi Yuusufa mooy Tiijaan euh, moo ko moom euh, waaye Yuusuf fa tabaarakallaahu moo ci dox wax ci ba lépp yëwén ndax takkusaan gi ba muy doog a tàmbali Aysa dafa ñëw fekk am na sono bu yor man ko sono bii day xam naa ni euh, ni nga bëgg tàkku tàkkusaan gi ñu sonorisé la ko day xaw a feebul ci la ñu joxaat ci laa ko joxañ tiijaan mi mu yombalal ko ko lool fa tabaarakallaahu ndax sorom bi li mu ciy laaj fa tabaarakallaahu mu doon kaneen dina loolu waaye jàpp na ci kon sëñ Tidiane ah yal yàlla yokk say sutura kon ñu jox sëriñ Youssou eh, moom <laughs> sant nañ ko nga ko soxna waaye moom mat na la borom kër yal yàlla barkeel seen diggante bismillah. imam بالله من الشيطان الرجيم أين ñu ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw di leen wax ak di leen ci bët yëpp moo tax ñu daje bi ñoom ñoo jël programme bi ci biir Maroc. ñuy way nabi jàkkam yaram wa daa ara tax bu doon wéyul ba di fëtër nabi suy muuy gémmiñ nga day melax kon képp koo xam ne teraloo leen ni ba sànni leen leneen xamal ne loolu yàlla yonent bi nga koy jëflanteel